l'honneur de vous adresser. Au nom de tous les membres de l'Association des jeunes entrepreneurs et au nom de Mami Events, les remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu honorer à ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat jeune. Permettez-moi de vous exprimer à vous, mesdames et messieurs, la gratitude de toute la communauté pour avoir accepté d'honorer et de rehausser de votre illustre la première édition de ce foire. afin de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est donc avec un plaisir assez singulier que je prends la parole en ces lieux, à l'occasion du lancement officiel des activités du foire du 28, 29 et 30 avec plus de 200 stands. Un outil qui se veut constructeur des valeurs entrepreneuriales autour des jeunes qui contribuera à la croissance économique et au développement durable et se projette comme plus grand carrefour de l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son engagement durant cette première édition. Mesdames et messieurs, chers invités, la population sénégalaise est composée de plus de 70% des moins de 40 ans. Cette réalité nous dicte la stratégie à adopter, inscrire tout simplement la jeunesse au cœur de nos actions. Tel est le leitmotiv de notre action et de son espace de commerce privé, pas comme les autres. Car nous en sommes convaincus, le développement de notre pays dépend euh, de la capacité de nos jeunes à entreprendre. Cette conviction devait également habiter nos esprits, car nous sommes acteurs du bien-être économique et du développement durable de ce beau pays. Mesdames et messieurs, chers invités, l'entrepreneuriat est un moteur de croissance économique car il est créateur d'emplois et de richesses. L'entrepreneuriat favorise l'innovation et contribuera par là même au rayonnement du Sénégal. Mais nous comptons nous en arrêter au beau milieu de notre chemin car nous travaillons de le tenir en Gambie, ainsi partout en Afrique. Nous croyons que l'innovation, si elle est portée par des jeunes entrepreneurs sénégalais sur le sol sénégalais, va contribuer au rayonnement du pays à l'international. Chers frères et sœurs, nous avons en nous l'esprit du travail, l'esprit innovateur. Nous sommes une jeunesse dynamique et nous pouvons honorer notre capacité à pouvoir faire, mais aussi bien faire. Dans notre vie de tous les jours, nous devons cultiver certaines valeurs qui consistent des vertus cardinales qui fondent et favorisent notre société. Il nous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Chers frères et sœurs, Travailler, travailler, travailler. C'est le reflet des courageux car le monde appartient aux veilleurs. Travaillons donc, parlons peu, agissons plus car si le parle sème, ce sont les silencieux qui récoltent. Mesdames et messieurs, et messieurs les directeurs d'entreprise, chers jeunes honorables invités, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de vous. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine, vive le retrouvail des jeunes entrepreneurs, vive le développement du pays, vive Mame Evans. Je vous remercie. mbokk yi ñu fi daje yéen ñëpp ñu ngi leen nekk ñu ngi leen nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi. di rafetlu teewaay bi aussi di am mbégte bu ñu ñëwee gis ay ndaw yoo xam ni ku nekk ci nga jóge ak fi sa moroom jóge bokkul ku nekk li ngay def ak li sa morom di def bokkul ñu tuddee seen bopp les seen entrepreneurs ku nekk am ci looy yëngu ñu ñëw xam ni réew mi fi mu toll li koy doxal ak li koy jëmmal ci ndaw ñi la mën a jóge ñu ni nañu dajaloo ñu wone wax xamal réew mi ndaw ñii tey ñooy doon ay mag ëllëg ndaw ñii tey ci la ministre yi di génn ëllëg ndaw ñii tey ci la président de la république di génn ëllëg ndaw ñii tey ci la suñu député yi di génn ëllëg ndaw ñii tey suñu DG yi ak suñu directeur directeur ak directrice yi toog ëllëg ñii doon ay ndaw nopp topp seen ginnaaw ñu leen war a remplacer ëllëg bu ñu jëlee programme bu toll nii pour wane ndaw naka la naka la war a taxawee ci dundam ndaw naka la war a taxawee ci réewam organiser lu toll nii suñu ko fekkee du ñu def du ñu man mën a def lu dul li ñu def mooy ñëw xool nuñ leen di accompagner xool nuñ leen jàppale loolu mooy suñu teewaayu tey fii loolu mooy suñu ay tànk groupe bi nag ñu gis mën na am lancement bi ñi fi nekk mais ci foire bi dina gën a yaatu pour ñi nga xam ni ñoo ñëw xëj na di doog a ñëw te xamaguñ lan mooy importance ak solo bis bi tey la tey la ñuy def lancement pour ubbi wane ni am na ndaje bu fi war a am boo xam ne mu ngi am la vingt huit vingt neuf ak trent lan moo fi am mooy ay jeunes yu dajaloo ku nekk métier bi nga nekk ña nga ci jël mu néew mu bari ñu nekk di liggéeyandoo ak yow ñu indi la ñu indi la nga wone wone li ngay def wone li nga taxawal wone ni nit ñi dañu war a góor góorlu ku nekk taxawal dara waaye wut yokk yaatal ndax ku ci nekk ci ñoom ñii fi toog ñii am nañ ay boutique am ñu te nekk di liggéey ñii am nañ ay tailleur lañ am ñu jël ñuy liggéey ku ci nekk li ngay def am na ñoo ci jël ñoo xam ni say employé lañ di liggéeyandoo ak yow loolu mooy taxawaay ak solos njariñu bis bi ñun suñu coono bii ñu ci sonn dañoo tolloon ñoom fi ñu tolloon bi bi fi ngeen toll bi ñu fi tollee ñun bu fekkonte ni defuñu ñun ni ñu leen def ñëw di leen taxawu di leen jàppale amaana ñun fii ñu egsi duñu fi egsi dañ ñoo taxawu jàppale ñu bañ egsi fii loolu moo tax ñun tamit ñu war a fay naar bi xorom mooy bu ñu gisee ay ndaw yu toll fañ tolloon doon di jéem lañ doon jéem ñu accompagner leen loolu moo loolu mooy solos bis bi ñu xam ni kon dafa am ndaje mu fi war a am le vingt huit ak le vingt neuf ak trente àdduna nit ñëpp bàyyi xel te jàppale leen man nag dama leen di ñaax li tax ma leen ñaax mooy bu ngeen ko defoon muy juróomi nit juróomi nit te dëggu wane ci ambition def ci li ngeen ci war a def mu réussir rek am na njariñ du nit ñu bari ñi du mbooloo mu bari mi yéen ñëpp ku ne xam na ni fii yéen ñi fi toog ci ñi xam ku nekk boo wowoon sa ñetti xarit fii waxuma saal bi mais si sas day fees mm-hmm. kon du solos affaire bi solo si du mbooloo mu bari mi ak xumbaay béegee ca aju solo si mooy wone nit ndaw nan la war a taxawee ak fan la war a jëm moo tax ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal lii ngeen taxawal yàlla defal leen ci sutura yàlla mottalil leen ko te ngeen am ci ndam ngeen organiser ko bi mooy première fois ngeen organiser waat ko ba di ko organiser mu nekk journée internationale fu ne nit di fa juge di ñëw di ko def ndax gis ngeen nii ngeen def nii fu ngeen dem man wàcc naa fu ne ci àdduna bi fu ngeen dem fu ne am na ay jeunes yoo xam ne nii yéen lañ def am na ay jeunes yoo xam ne nii yéen lañ def di organiser wu nekk ay entrepreneur di góorgóorlu tey war ngeen mën a dem ba ne journée bi da ngeen koy def journée internationale ñëpp dugal ci seen loxo fu ne nit jógee fa ci àdduna bi ñëw fii fekk si leen ngeen di ko organise te loolu lañ leen di ñaanal kon nag na ñëpp xam ni loolu mooy solos bis bi waaye nag bis bi am ay partenaires yoo xam ni ay partenaires yu am solo lañ comme ni ñu ko waxee léegi waa ONFP ñëw nañ fi léegi euh, madame euh, Touré ñëw na léegi nga xam ni moom mooy jëwriñ ji nga xam ni moom lañ fa dénk lépp lu jëm ci wàllum formation hmm. nga xam ni moo koy doxal monsieur Ka aussi ñëw na lépp lu jëm ci orientation pour ma gën ko yombal bi ngeen nee cëpp ONFP bu fekkonte ni dajewu wuleen woon ak ku mel ni Moussa Kami mu orienté leen du ngeen àgg ci DG xam naka ngeen déposé seen ay lettres xam ni fii ONFP li fi nekk jeunes yi ñoo ko moom ñu expliqué leen ko ba mu dugg ba mu dugg ci seen bopp ba ngeen mën cee jariñu ba tey ñoom ñëw fii di leen accompagner. ñu mel ni caisse caisse de dépôt CDC ñëpp xam nañ ni ñu ngi dugal seen loxo ñoom tamit di jàpp ci bis bi. Euh, lu mel ni direction de l'emploi aussi ñoom it ñu ngi organiser wu di xool aussi naka la ñuy àndee ak programme bi jàppale leen ministère de l'enseignement supérieur aussi même chose. noonu lañ ko mën a waxee ci ñu baree bari ñoo xam ne ku nekk yaa ngi intéressé wu tey pour ñëw dugal sa loxo ci liggéey bi te li may defaat mooy damay defaat appel bépp autorité boo xam ne yaa ngi ci réew di gis xale yii ñu toog ku ci nekk ubbi dara di daan sa doole te mënoon dem defi leneen nañu leen jàppale mm-hmm. président de la république ak mbooleem ñi mu àndal ci réew mi di liggéey li ñuy santaane leen képp la mooy nañu jàppale ndaw ñi président de la république ñaata discours am ngeen dégg lu muy wax boole ci nañu taxaw nañu jàppale jeunesse bi kon nag yéen ñi nga xam ne yéen lañu ko dénk nga xam ni yéen a dox diggante président de la république ak askan bi ñu dénk leen ay poste jege leen askan bi ngeen gën leen jàppale te xam ni ñii ngeen di jàppale ëllëg danañ toog ci poste yooyu nga xam ni yéen a fa toog na ngeen soxla service sax fekk room mu ngeen leen bu yàgg demande leen ko ñu war leen rendre service. kon nag maa ngi lancé waat appel képp ku nekk ci réew mi bàyyiwuma kenn nag bàyyiwuma kenn na ñëpp jóg dugal seen loxo ci jàppale ay jeunes yoo xam ni tooguñu di xaar kenn parce que buñ toogoon di xaar kenn duñ organiser lii. ñëw jël sa ñëw jël si ses indi ay journaliste jàpp dat wax kañ ngay commencé naka lay déroulé loolu ku toogoon di xaar kenn doo ko def ki li li olof njaay di wax naan luy naawa neex a sànni ñiy jóg di jéem dara ñoo neex a jàppale kon nag maa ngi lancé war appel na leen kuy ministre directeur général DG conseil technique loo mën a doon te xam ni bis bii am nga loo ci mën a apporter mu ndaw mu bari dugal ci sa loxo. Mm-hmm. nga jàppale leen parce que ay ndaw la ay ndaw la ñuy jéem. te xam naa ni ëllëg ëllëg lii lu ñuy nettali la ndax mbooloo mu ngeen gis ak lu mën a xew dina am ñu ciy rëcc dooni dara ëllëg ci réew mi ñoo xam ne dañ leen di bàyyi xel mm-hmm. kon nag na ci ñëpp dugal seen loxo. maa ngi oo ñëpp bàyyiwuma kenn. ngeen wax les jeunes entrepreneurs fu ñu teg seen tànk foofu la ndax Sénégal dafa toll foo xam ne si ay jafe-jafe liggéeyu ndaw ñi président de la république di ci liggéey liggéey bu am solo mu teg ay bànqaas yoo xam ne muy ministère de la formation professionnelle. bi nga xam ne le ministre Mariama Sarr moom moo ko jiite si ministère boobu dafa am benn banqaas bu mag bu am solo ñu tuddee ko office nationale de formation professionnelle te moom moo ko jiite euh, OMFP mooy service boo xam ne dañ ko dénk lépp loo xam ne dafa dem si qualification professionnelle maanaam développement de compétence lan mooy développement de compétence foo munta dem si réew yi nga xam ne dañoo développé dafa am foo xam ne foofu lañ tënk seen développement mooy lépp looy liggéey danga ci am xarañte danga ci am man-man danga ci am xam-xam loolu bu amul mooy indi nit ki nga avancé ba nga sori nga xam ne de yoon bi nga jaar du boobu donc service boobu ñoom la ndaw ñi nga xam ne tooguñu comme kii nu mu ko waxee ba ñu ñëw ñu ne leen kaay ñu dem wala kaay leen ma jàppale leen mais dañoo jóg def lu ñuy wax jël seen destin en main nara participer aussi ci développement Sénégal donc si loolu lañu DG wax bu ngeen demee ngeen ne leen vraiment ñu ngi leen di encourager bu baax a baax ndax loolu moo jafe tey nga gis ay xale yoo xam ne dañoo gëm seen bopp wóolu seen bopp nar a demal seen bopp comme ki fi toogoon lu mu wax ñooñu dañ leen war a jàppale te le mu niru Ly pare na nee na pour jàppale leen lépp loo xam ne soxla ngeen ko si wàllu formation moo tax sax ñu ànd ak suñu jigéen bi nga xam ne moom moo yor lépp li nga xam ne moom mooy formation ndax ñu yokk seen i compétence ñu yokk seen i xarañte ndax affaire bi foofu la war a tegu lépp loo def te tegoo ko si compétence doo sori doo man donc message boobu la waxoon tey ñu indi ko pour wane vraiment satisfaction bu mu am même bu dul dara yéen ñëpp ñoo leen war a jàppale ndax lu tax ñu war leen jàppale am na ñoo xam ne tey fu réew mi toll dañoo décider dem ailleurs waaye message bu ñuy lancer di wax la jeunesse sénégalaise que on peut rester au Sénégal avoir son emploi au Sénégal se développer au Sénégal et par conséquent développer la Sénégal donc ñi exemple bu baax la ñuy wane demuñu fenn suñu réew lañ gëm te dañuy toog liggéey participer suñu développement réew donc loolu la docteur loolu la euh, Mouhamadou Mounirou li comprendre pour mu ñëw jàppale leen te dafa am benn vision bu mag bi nga xam moom la am ONFP mooy accès équitable à la formation accès équitable à la formation mooy lan bépp ndaw bépp jigéen bépp góor boo xam ne yaa ngi ci biir Sénégal nga bëgg formation boo ñëwee ONFP dinañ la jàppale parce que nag loolu mooy suñu mission partout au Sénégal ñu ngi intervenir di jàppale ndaw ñi di jàppale jigéen ñi di jàppale mag ñi kon yéen fu ngeen tegu foofu la parce que justement ñun tamit loolu mooy suñu vision loolu mooy li nga xam ne loolu mooy vision euh, Mouhamadou Mounirou Ly merci beaucoup de votre aimable attention maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñi fi ñëpp di ziar ñi nekk suñu ginnaaw ñëpp di ziar aussi invité yi ndax maanaam toogaay bi yàgg na quinze heures la ñu ba heure bii man tànk bu fi ñëwee am na ñu ma fekk ñu toog fii ñu ngi leen di baal bu baax a baax événement moo demee noonu des fois nga am yoo prévoir yoo xam ne nii dafay retardé ñu ngi leen ci jégalu bu baax a baax a baax comme ni ko Mamy Evans waxee rek daane ko ñoom wax nañ lépp ñun dañuy tënk rek tëj ko di leen jox rendez-vous incha allah rabbi ci jour foire bi le le 29 et le 30 na ñëpp ñëw na ñëpp teew ndax nee naa ñii toog dañoo bàyyi seen yitte bàyyi seen boutique bàyyi ñu fa kenn. sànq ba tay maa ngi dégg ñu naan sama boutique bàyyi ma kenn mais volonté bi ñu am gëm-gëm bi ñu am nekk ay jigéen nag wekkuñu ci ginnaaw kenn xaaruñu kenn mu defal leen dañu ne ñun nañu jug utal suñu bopp nañu jug amal suñu bopp ngalawaay na ngeen ñu gën a jàppale na ngeen ñu gën a tette ba lu ñu bëgg mbébét ko mu sotti ak jàmm ak salaam ba ñuy toog naan lii mooy cinquième édition ba ñuy toog naan lii ba ñu ko dalee def ay xale lañ ba ñun peut-être suñuy doom màgg ba koy def kon jàppale leen ñu bu baax a baax a baax liñ leen di wax dafa fees ci suñu xol xëy na mam yi moom dama koy wax chaque ne ko jàmbaar ndax jàmbaar rek moo mën a bon moroomu jigéenam ndax jigéen bari na caprice jigéen bari na coow jigéen mën na gaaw a changer avis mais tout le temps dama ko yërëm man chaque jour ma déggante ak moom guddi bu guddi laay wax nga parce que li nga mën mën mënu parce que ni ngi ci toppee date bi reporté nañ ko à maintes reprises mais chaque jour yaa ngi gëmloo nit ñi que ne dina am ba yàlla dogal ko tey yow ngërëm gi yëpp ci yow la ndax bu ñu toogoon suñuy kër rek woo woo ñu peut-être lii du am mais ku ci nekk yaa ngi koy woo di ko ñaax ku amul logo sax peut-être da nga koy tàppeel logo wala ne ko kaay ma defaral la lii pour rek mu avancé nee naa bu lëkk lekkee olof la ko ngërëmee coono lépp yow la. ay ca mu ngi noonu li may ñaan rek mooy incha allah rabbi le 28 le 29 le 30 ñëpp ñëw incha allah fi nga xam ne nii moom moo di ses jàppale ñu dooleel ñu ndax ñun ñooy seen ay jigéen yéen ñun bu ñu amee yéen am ngeen ndax lu ñu am si kër lañ koy yóbbuwaat si suñu njabooti lañ koy yóbbuwaat si société bi lañu koy yóbbuwaat ay ca le 28 le 29 le 30. dëkk bi dina yëngu ak Mamy Evans ana xale yi. waaw. bu dee waat xale yi liggéey la dugal. ah góor nga bëgg nga bëggoon nga sonné xale yaa ngi foofu jël ko.